salaam wa rahmatullaahi taala wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullaahi wa barakaatu ginnaaw bu ñu nuyoo fay leen nuyoo nangu seen siyaara di leen siyaara yàlla moom di yàlla moom lañ bu baax seen siyaara man ñu leen di siyaara ñu tey ndax ni Isaaka waxee Muhammad bi wax ko yàllaa ko moom ndaxte olof dafa wax ne war nga tudd dëkk war nga tudd dëkk moo tax ñu koy askanee Daraame waaye yàllaa ko moom ah bala may bala may foofu nag ndax dafa am lu mu junj dinaa ko wax ngir waaw sëñ bi nee dafa am lu Seydi Isaaq junj dina ko leeral nee na dina ko dina ko leeral dina dalal seen xel ngir gën a dalalaat seen xel bu baax a baax a baax a baax.